may wax les rappeurs de sénégalais quoi temps yi am na lu bi affaire de classe ak booy réew yi quoi tu vois genre dibi nii ñu ngi fàtte nit ñi dib gënuñu réew gënu nekk bandi tu vois xam nga classe dafa bokk si bopp mais na xam ni xool marto bi dina ko dina ko dal parce que classe dafa bokk si hip hop. yee classe bokk si rap rap ak mbalax bokkul. mbalax nga seen seen fanse yi seen public ñii di xooleeku mu ñii di xoole ay tuñ ma ko daafee de mbalax maa ni bu bëree ngay seen Sénégal li xam na nekk ay góor jigéen boog li sëpp da nekk ay kanaara gém bi mu ngi ko quoi gém baa ngi nii je suis rappeur tuba mais bëgg naa gars yi bëgg naa Sénégal am ay promoteur ñuy ëffal rappeur yi ñuy batal hip hop fekkee deug la quoi run lan moy sa problème ak dip parce que ñu ni wax ci El Jazz nga nga ñew feul ci ci ci dip lu sa problème ak dip non non non dip amuñu problème dip amuñu ben problème dip wax yalla quoi dama ko respecté dama ko gëm mais mom nangu bi ko gaay ni gaay di saagaande mom naka nangu lan motax mu war ko nangu saga neexul si kenn. non non parce que mom moko ko mom mo saga ndey rapper yi mom mo def lu ko neex. en dégg moom moo taxaw mu ma saaga ndey rappeur yi da mooy kan rappeur quoi je suis rappeur La taxaw ndey kan. hip hop dafa am talent am buzz am bass. suis ki xam li nga wax mais rappeur comme rappeur comme quoi tu vois mais na nga quoi amul ay ba parce que mais vous êtes des presse. ça c'est un message pour jàllale may ñaanal Sen TV mais état fekk day jàpp na jàppale TFM dëgg la na nga koy parce que bu dee xeetal da koy def mais la loi c'est pour le dëkk bi nag réewu doome raam la kumba am ndey ak kumba amul ndey ten thousand maata la from laaxira rëñ merci beaucoup de